ak benn shérif bi nga xam ne moom lañu ñu mujj détecté positif bi mu ñibbee Mauritanie euh, dëkk bi mu ngi ci arrondissement Boy-Guel Bamba mais mun nañu déjà rassurer nit ñi que malade bi isole nañ ko depuis bi ñu jotee résultat yi ñu teg ci que jël nañu ay mesures waxtu bi may wax ak yéen nii médecin chef de région ak équipe am yi ñoo Goudiri pour mun dire en charge de Euh, brigade régionale d'hygiène également déployé nañ ko mi ci bi pour mun a teel yegg Goudiri jubal ci village bi désinfecter kër désinfecter village bi le siwaat Goudiri désinfecter centre de santé bi nga xam ne moom recevoir malade bi ñu que village bi ci boppam jël nañu décision ferme confiné ko maanaam dëkk boobu bu soobee yàlla fii ba bi ñuy euh, mun a am beneen évolution nit munu fa génn nit munu fa dugg gendarmerie jot na instruction bi ñu ngi koy exécuter léegi